gars yi dañuy dem déglu après imam Dramé imam Dramé xaw ma activiste euh, dafa doon jéem a tontu Omar Sall quoi ci ay wax yoo xam ne moom ay wax yu kasaw kasaw la ko teg dañu dem déglu imam Dramé ah xaw ma fan laa def ki yow. léegi nañu déglu temps yi dama gis ay nit yoo xam ne temps yi dañ doon euh, ay détracteur Omar Sall mais Omar Sall moom ñu naan jàmbaaru jàmbaaru l'islam la yàlla ko yàlla fay. macha allah mu ngi def lu rëy ci daaw bi dugal nañu bëri ci sunna liggéeyam liggéeyam mu ngi barkeel mu ngi am solo wax dëgg fa yàlla euh, mooy daa yi boo xam ne mun naa ne euh, ñu koy siiw bëri na trop wax dëgg fa yàlla mu génnee yu bari ci ci ay caaxaan léegi dañuy dem déglu euh, Oustaz Oumar Sall dafa waxoon temps ci benn vidéo dafa wax ci màggal nit màggal nit ba teg ko palaasu yàlla la doon wax ne loolu bokkaale la après gars yi génn gauche à droite jël ko daggate ko bon peut benn mbokk moo dagg vidéo bi séquence boobu dugal ko ci kii bi ñu ngi jël ko di ko reprendre ku ñëw di ko dal naan lu mu wax nii ba ci ëppal quoi ma gis nag Imam Dramé euh, ok léegi nañ déglu Imam Dramé Imam Dramé benn imam la boo xam ne xaw ma activiste la xaw ma je ne sais ñu déglu ko bu Umar Sall waxee ni màggal ni dafa xaraam moom mu ñëw. am lu mu ci wax di ay propos yoo xamante ni bëgg lu neex muriti dong moo tax moo koy wax waaye teg ko fenn ñu déglu ko. liñ tuumaal imaam Alioune Badou Ndao ni ko jaajëf. terroriste bi moom lañ tuumaal Serigne Touba ci ñaari rakkay Ndakaaru. Serigne bi ñëw ni leen da ngeen a wax ni terroriste la d' accord. da ngeen a wax ni jihadiste la d' accord waaye man ban jihadiste la damay def jihad boo xam ni dama koy def teg ko ci xam-xam. Mhm. jihad pacifique. inni ujahidu bil ulumi wat tuqa maanaam ulum mooy xam-xam yëpp xam-xamu science bi ci dugg lépp. Mm-hmm. yaa ngi dégg ak ragal yàlla. Mm-hmm. kon kooku dafa bind bàyyi bi kenn mënu ko tuumaal. Mm-hmm. bu dee màggal gi mu woote lan la woote kaay leen sant le ma yàlla. imaam fi ñu koy déggee moom mooy nee na euh, sant euh, màggal googu ñuy def daanaka dafay tekki leneen ci lislaam lan lay ndax kenn lañu war a màggal. non loolu fan la ko ba téere moo. moom oustaz. Euh, mais kan la sëñ Tuubaa màggal kan lay sant bi yàlla. Mm. li wax ni kenn lañu war a màggal sax c'est faux waaye dama la bëgg a wax ni Serigne Touba waxoon ni kaay leen sant le ma man seen sant ma seen Touba dañu kaay leen sant le ma yàlla. le ma yàlla waaw ma am. ci mm. kaw Touba mm-hmm. te bi mu wàccee wax la ko mm-hmm. bi mu wàccee li mu njëkk wax ijaal ruju'i ila qawmi saadatuna ndam lu rëy li ma am delloo naa ko peuple bi yàlla naa ko bokk ak bi yàlla na nekk tawféex ak najaax ci ñoom kon kay kaay sant le loolu te sant ku ne xam na ni. moom moom mooy matt bi di gën a jafe sax xalilan ma tashkurun loolu la alxuraan wax moo tax bari na ñuy wax ci mag ñi feru ñu ijji seenum njàng bënnul loolu ko nit ñi xam ko <laughs> Seyda Ji Malick dara wax Seyda Ji Malick bari na Sénégal bari na ñuy coow jànguñu <laughs> parce que xam-xam du coow ay tari mais nga xam sa jamono xam yow société bi nga nekk ban société la Seyda Ji Malick dara wax naan xam-xam su néew ak ndox su néew ñoo yem gis nga boo yoree xam-xam su néew yor ndox tey boo yoroon ndox su néew di dugg ci wanag yi boo duggee da lay gën a taxal waa ji la seetaan. yow yow Umar Sall mën na la jàngal jàngal ku la jàngal yow Imaam Dramé Oustaz Umar mën na mën na jàngal jàngal ki la jàngal yow mii yaay wax xam-xam bu néew yow li ngay wax ci boppam mooy xam-xam bu néew nañ ko dégluwaat. ñuy tuumaal ñuy tuumaal Imaam Alioune ko jihadiste hmm. moom lañ tuumaal Serigne Touba ci ñàkk. na jaax ci ñoom. kon kay kaay leen sant le yàlla. loolu te sant ku ne xam nañu. moom moom mooy martaba bi gën a jafe sax xalilan ma tashkurun loolu alquran wax moo tax bari na ñuy wax ci mag ñi feru ñu ijji seenum njàng bënnul loolu il faut nit ñi xam ko <laughs> Seydi Hadji Malick danaan wax Seydi Hadji Malick non ah, pour tontu pour tontu imam pour tontu imam Dramé imam Dramé xam ngeen ko ah, ñoom ñooy imam yi nga xamante ne ñoom à chaque fois dañuy xool la ëpp ci nit ñi lañu ñu bëgg rek ñu koy wax moo xam ci côté politique la moo xam ci côté diine la ñoom genre imam yooyu la quoi imam fëgg jaay rek mooy fu vent bi dem rek ñu dem fa à chaque fois instant yi bëgg na am sympathie murit yi moo tax muy wax lii muy wax di attaqué Oumar Sall mais Oustaz Oumar Sall xafisahullah wa raa yàlla ko yàlla sàmm te yàggal ko fi di jàmbaaru lislaam def lu bëri ci diine def lu bëri ci sunna macha allah euh, bëri na man kuy wax ak man euh, saa yu waxee man day tudd Oumar Sall waaw bëri na ku naan kuy wax man ne ma Omar Sall moo tax ma gis sunna te alhamdulilah loolu yàlla na yokk mu ngi ci yoonu yonente yi nag waaw parce que yonente yi moom bu ñu nekkee seen yoon di woote amul lu ñu leen waxul yonente bi tuumaal nañ ko jibarkat tuumaal nañ ko fenkat tuumaal nañ ko lu ne am na yonente yoo xam ne tuumaal nañ leen sax ak i jigéen waaw comme mënul dégg lu yonente yi déggul woon il faut mu dégg ko mais imam Dramé pour wane hypocrisie wax na ba ne Euh, moom dafa layalee leen sëñ bi moo ne kaay leen santalee ma yàlla loolu moo njëkk a nekkul diine amul fenn fu ñuy diglee ci alxuraan ak sunna ne ay nit bu ñuy sant yàlla ay nit dañuy dem dajaloo benn bërëb di fa sant yàlla loolu wërul sant yàlla aajoowul déplacé wu dem ci bërëb loolu benn la ñaareel bi mooy bidaa la nga naan nit ñi kaay leen santalee ma yàlla loolu diine kaa leen santalee ma yàlla loolu du lislaam loolu saxul fenn nit ki bu la defalee dara da sant yàlla yow yaay sant yàlla mais yow keneen kaay santalee ma yàlla lii loolu du diine laa wax loolu lu ci sos la amul preuve ci alquran ak loolu benn la comme imam Dramé indil ci alquran ak sunna ni nit am na droit nit ne leen kaay leen ngeen santalee ma yàlla wala nit kooku moo war a sant yàlla wala keneen mun na toog sant yàlla ne yàlla maa ngi lay sant ci muccal bi nga muccal diw loolu mun na nekk waaye nit ñi kaay leen yéen ñëpp ngeen dajaloo fii ngeen santlee mu yàlla loolu du diine loolu bidaa la beneen bi mooy Imam Dramé màggal ka fay dem ña fay dem ndax ay yow lañ fa wut si wala déet ndax kay dem màggal jàppul ni bu demee màggal day am tiyaaba loolu la jàpp wala déet naam tontu bi mooy waaw ñee dem tiyaab ñee dem màggal ñëpp dañoo jàpp ne bu ñu fa demee seen yi bàkkaar dañ koy raxas loolu lañ jàpp waaw raxas bàkkaar ak lu lay may loolu lan moo koy valide lan moo koy décrire yàlla moo la lii boo ko defee am tiyaaba ñu fompal la say bàkkaar lii soo ko bàyyee ñu effacer la say bàkkaar bind la tiyaaba loolu ci yàlla lay jóge ak yonentam fan la yàlla waxee ni dajaloo fenn benn bërëb di fa sante yàlla loolu ku ko def da ngay am tiyaaba dañ lay jéggal say bàkkaar loolu amul fenn yaa Imam Dramé te doo ko indi fenn aussi doo ko gis fenn comme màggal benn famille ñoo ko organisé du diine lislaam bokkul ci diine lislaam du ponk lislaam du farata du sunna du lu ñu sopp màggal du ponk lislaam du farata du sunna du lu ñu sopp ponk lislaam adduna bi ñépp koy jëfee comme julli foo jullit bu nekk ci àdduna bi dañuy julli amul benn àdduna bu nga naan am na jullit yu fi nekk du ñu julli amul walla lu ñu sopp lu ci mel ni euh, ñaari ràkk wala boog sunna mu ñaari ràkk fajar foo dem ci àdduna bi jullit yi dañ koy appliquer wala lu ñu lu ci mel ni soccu balaa julli foo dem ci àdduna bi jullit ña fa nekk am na ñu koy appliquer mais màggal à part Sénégal yan jullit ñoo koy appliqué à part sénégalais yan jullit ñoo koy appliqué ñoo koy célébré comme loolu diine diine islam jullit ñoo ko ci bokk di ko def comme loolu amul loolu Imam Dramé waxu naafiq nga fi wax waxu hypocrite nga fi wax sa wax ji dëgërul fenn waaw parce que xam nga ni instant yi bugg nga am seen kii kii wu mu rek ngay wax li ngay wax mais tegoo ko fenn ñu dégluwaat ko. fi coow jànguñu parce que xam-xam du coow nga xam sa jamono xam. du dëgg xam-xam aaya la ak xadis loolay xam-xam. xam-xam la ak xadis. al ilmu qaala allahu qaala xam-xam mooy yàlla nee na yonente bi nee na saxaaba yi nee lii mooy xam-xam imaam Dramé xam-xam li wax du dëgg ndax xam-xam mooy da ngay xam xam-xam mooy yàlla xam-xamu yàlla yonente bi saxaaba yi loolay xam-xamu diine te Omar Sall loolu ci loolu la nekk lu wax dalay indil aaya lu wax dalay indil xadis comme yow mii wax ci li nga wax amaloo ko aaya amaloo ko xadis tey sax naka dalu màggal bi amaloo ko aaya amaloo ko xadis dangaa jël yàlla fu mu naan sant yàlla bu général nga jël aaya boobu bu ko firée ni moom mooy màggal du dëgg nit mën na sant yàlla nit dañ koy digal mu sant yàlla nit dañ koy digal mu sant yàlla wala in shakartum la azidannakum wala sante ma dolli leen waaye nit ki mooy sant yàlla mais dajaloo ci bërëb naan nit ñi ñëw leen ngeen sant leen yàlla loolu bidaa la loolu diine waaw loolu bidaa la ñu dégluwaat ko ñu tëjee ko moom. yow société bi nga nekk ban société la si laaj ma da wax naan xam-xam su néew ak ndox su néew ñoo yem gis nga boo yoree xam-xam su néew yor ndox tey boo yoroon ndox su néew di dugg ci wanag bi boo duggee da lay gën a taqal du la setal foo fekk couverture nit yi waxi dof lay wax di tardé nit ñi tey ku toog ba deux mille vingt deux ngay wax ay màggal dagan naam daganolo mooy xamoo lan mooy l'islam mm. l'islam contexte bu nekk ak li mu laaj mu jaddit yi li taxoon ñu ñëw mooy ñëw pour beesalaat sunna si yonent bi du leneen kon si Ahmadou Bamba xaadimu rasuul fierté la ci képp ko non non màggal kay beesal sunna yonent bi amu fa màggal lan moo fa am imaam Dramé ndamal màggal du fa am mooy raay ay miiru bàmmeel mooy sànni ay xaalis ci bàmmeel mooy dem ci ay sëriñ di leen sukkal ak raamal loolu fan la nekkee sunna yonente bi nee na màggal mooy beesalaat sunna yonente bi nañu xool màggal lu fay am mooy toog du wax ay bokkaal ko bas lu mu wax toog naan ku dugg ci bàmmeel sëriñ bi nga yaakaar mu ngi koy wax ci bisu màggal bi loolu mooy beesal sunna yonente bi imaam Dramé màggal lu fay am dem ci ay bàmmeel di raay bàmmeel yi di ñaan ña fa tëdd loolu mooy beesal sunna yonente bi màggal jël ay xaalis di ko sàddi ci bàmmeel loolu mooy beesal sunna yonente bi imaam Dramé yàlla ci la ngay wax comme màggal kay duñu sos la waaye nekkul luy beesal sunna yonente bi ndax mbir yi yépp ma tudd ci màggal lay am te boo xoolee jotewul dara ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme moom mii moo néew xam-xam moom moo amul xam-xam moom moo xamul dara moom mii la àll yom gàtt lu alaaji Maalik wax nee na ci moom mii lay tàbbi parce que wax na fi ba jeexal amul benn aaya wala benn xadis buy dëgëral màggal boobu muy défendre mais Omar Sall bu màggal ni da koo teg fu leer yàlla moo ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika boo jëlee nit cëru nit yàlla jox ko mooy màggal ko màggal boo xam ne yàllaa ko yàlloo waaw boo demee ba ci nit kii jël sa jëmm jëmbal ko ne jëmbal naa la sama jëmm ji àdduna ak àllaaxira kooku màggal nga ko te nga ko place yàlla kooku màggal boobu dafa xaram màggal la màggal bu xaram sëriñ bi boo taxawee nga nekk Dakar sëriñ ba nekk Bawol nekk Touba wala nekk kii ñu ne la waa yow suba di nga dem fee ne ko bu soobee sëriñ bi màggal nga nit màggal boo xam ne yàllaa ko yow parce que sëriñ bi amul lu koy soob parce que dem debug suba ak sa wërub yaram suba. du sëriñ bi kooku yàlla la comme sëriñ boobu màggal ko ko ba teg ko palaasu yàlla comme Omar Sall loolu la la wax ne dafa xaram loolu la la wax ni loolu bokkaale la loolu dafa leer wàcc ci keneen ku dul yàlla wàcc ci sëriñ màggal nga nit màggal boo xam ne yàllaa ko yelloo waaw su ma la waxoon ndax yaa ngi ndax ndax euh, ndax diw live na nga ne ma waaw live na mën na la waatal nga ne barki sëriñ diw te sëriñ diw boobu faatu na. xamul woon ndax yow ndax moom diw laayaf na wala laayaful comme yow màggal nga sëriñ bi màggal boo xam ne yàlla danga ko yoroon ndax loolu yàlla rek moo ko xam ak ñi nga xam ne ñoo doon seetaan waaw ko Imaam Dramé yow yaa xamul dara yaa fi waxul dara yaa fi waxul tus Omar Sall lu wax lu leer la Omar Sall lépp lu wax preuve bu leer la indi aay indi xadis waaw yéen ñëpp nag dafa baaxul ci yéen maanaam day yàq seen business yéen surtout yéen imaam yi nga xamante ni fu tooy rek ngeen ngeen ngeen dal fu mbooloo bi nekk rek lu neex mbooloo bi rek ngeen di wax xam nga ni seen business da koy yàq moo tax ngeen taxaw di ko jéem a galgal ko mais mënoo leen ci moom dara alkilaabu tanbax wal qaafila tasir les chiens aboient la caravane passe voilà loolu kese la yàlla yàlla sàmm Omar Sall te dëgëral ko dëgëral ñu mel ni moom man moom damay sawar ci di ko défendre ndax nit ku ma naw la te macha allah nit ku bëgg dëgg la ku ñame lu def la ku sonn la ngir daaw bi nga xamante ni euh, moom lay def yàlla ko borom subhanahu wa te te bàyyi ko fi. li mu leen wax rek mooy tànk ay nit ñu ngi fi di xotti war may yàlla ak war may yonente bi pare nañ pour tontu leen pare nañ pour tontu seen wax luñ ci góobee nag ñu gar ko ah, man nag waxuma ci turu kenn na leer bokkuma benn association tënkuma ci benn cheikh damaa bëgg mu leer dinaa leen respecté nag waaw. dinaa leen respecté ñi ma jiitu ci tool bi ak kii naa leen respecté suñu amee conseil naa ko déglu waaye tënkuma ci benn association delluma ci kenn tënkuma ci kenn li may wax sama responsabilité bopp la man maa ko jël di ko wax di ko def li ma ci góob ma kar ko